I feel like liggéey ak from talent from talent ba pare focus yo, you know, uh-huh, yo, the Sufi, Morning Jam. I first grabbed cruise, there was like little damn, cause I was tough young, rough like King Kong. Albert Tangier, forum mu ñu lay jàngali yër, fay du rekkay dëgg, ala ala rek ngay dégg. su ma job ak moom tamit su may job I'm damay excited because waxoon dafa ne ñëw been an idea boo xamante dafa Definitely funny so when you like. Uh, uh, so classic so classic yeah mm-hmm. fa ñëw mu ne ma ok dama boole benn song ak suma crew bi waaye dama bëgg song bi classique ma ne ko lan ngeen mën bàyyi classique ma ne non ma bëgg affaire bi am mm, ay sound classique sometimes bu mun a explain exactly sax lan la bëgg waaye xam naa ne am na lu mu bëgg mais bi dafa am problème juste pour explain ba ko mu mun a xam lan la waaye man dinaa xam ne ni am na lu muy féen wakkaale baay ñas Jesus a serving, we know God for real, come from beware. Y'all meet your bank, convert, come from below. We see what you see, I can see what we see, that's the unseen. We the white soldiers, we represent what we live, Allah white check out. Young Gulen Banyak can see. I'm gonna check out. Allah by get deck, con young will buy, reg my deck, deck, Allah. East, west, north, south. For hard gift for Jimmy, Allah, I'm gonna bend down, cause you can learn, we're gonna last to die to buy G. jàpp leen mu dëgg. am euh, Dieng Saala Baye mooy ki nga xam ne nii moo ma jëlee si lëndëm indi ma ci leer def ma sondaaru Baye xamal ma yàlla xamal ma Baye. Abdallah kamara ñu gën ma xamee ci Abdallah ci game bu ma nekk mooy hip hop euh, lu yàgg ñu ngi ci nekk di ci liggéey. yàgg naa ko wax Abdallah du liggéey ak ku nekk te su ma demee ba liggéey xol bi kon gis naa artiste bu ma mun a liggéeyal ma liggéey ak moom ci coté musique ci côté leneen ak leneen. 107.6. <laughs> yo yo yo yo booy booy sànni nice na ah. bi ñu ngi ko joobee si laab bi mooy fu ma la yóbbuwoon demoon na bi yaaxal la jox la ay affaire. ok la. waaw euh, lu tax euh, mën naa xam lu tax nga cuul sound bi nii. Euh, sound bi nekk na morceau yu gën a métti ci morceau xab bi mhm. tamit dafay wane ne xab bi léegi mag la. soo déglu mhm. musique bi da xam ne léegi kii jógee na si benn level. Mhm. dem na ci level mhm. euh, neex ci sound dafa am technique mu ngi biir sound te ku déglu musique di nga gis di nga xam fan la mhm. ko fan la technique dina fan la technique mhm. dafa lay kon euh, def maîtriser good music la déglu Don't ever give up. Believe that you can make it if you try. You know, come on. Lambo waxe that's good that's it the clap is channel clap bi oh maybe I thought let me a voice test video oh let press no stress so fii leen joobe everything Harlem record even though i am the vocals yoo xam ne ñu ngi ko defee Sénégal jéegi waa records ak yeneen vocals yoo xam ne ñu ngi ko defee feneen gars yi dañ ko def seen ñu ko comme xam nga ñun ñu ngi job ak euh, different different artistes yoo xam ne ñenn ñëpp ne nekkul na ñëpp a nekk biir Gambia so because luñ bëgg mooy dañ bëgg album bi nekk euh, classique album dañ ci isi ñoo xam ne even though duñ ay rap so ñu indi leen si biir album bi nga xam ne nañ ci ba tey style dafay nekk biitu hip hop moo tax ñu ne hip hop style la pare nga wane ci leneen so dangay gis ne nii am nañ ci euh, artistes yu mel ni from Gambia fii am nañ ci Amid Wisdom Smoke Doctor Killer Ace, Sa X, Ghetto Child, Red Sam, Bilal Bin Keba, Hustler xam nga nga am Ses uh, Ngom from Gambia nga ku ne xam ne ne Ses moom nekku ne hip hop la dee def waaye dañ ko isi waat ci affaire yi Mighty Joe ku ne xam ne du dee def hip hop waaye dañ ko isi si biir album Mighty Joe mu ngi am nañ ko ci album bi am uh, am nañ ci Kumba tam waaw soxna Zabla am uh, côté Sénégal am nañ like soxna Astou am nañ fa Maxine bu Geng ñoo bokk même clique muy Geng Fu 3945 ñoo joobandoo soo moom mu ngi si album bi am nañ ci tam Purpose the Writer ku ne xam na ko Shine Like You am am nañ ci Karim Ta bu beneen squad moom tam from Sénégal la i am uh, i am Nancy Karina Carmen Karina from German moom benn German la. classe commencé jàng ABC 1 3 4 léeg-léeg ma tardé ñu jàpp ma barkaat ma jooy noppi nekkaat nit xam-xam mooy lamp bi nit soo ko jaru ngay téye ñàkk a xam. si hip hop still hip hop. Logical, logical, logical. It's me and hip hop, yeah, hip hop, still hip hop. Who was the thing? 7 on that Kumona gang. Hip hop, who could talk? Hip hop, hip hop, that's what's up. me and hip hop, yeah, hip hop still. Hip hop, who was a gang? 24-7 on that Kumona gang. Hip hop, who could talk? Hip hop still, hip hop, hip hop, that's what's up. Uh, this ain't no joke, hip hop. Bucano Douglas, keep it up from angle to angle, no doubt. to side, shout out hip hop. Culture, beautiful, culture. love, unity is borrowed, I for our community. Hip hop for good, unify the nation together in one mission. It's you and I, I'm robbing you, keep clapping. Let's get it on, cause the mic is just on. I'm uh, young ngi laaj ndax album but then go war again génne Sénégal whatever loolu yëpp bëgg nañ ko def bu soobee yàlla waaye dañuy gis ne nii am yoo xam nga suma manager bi Abdallah moom he got that connect from Sénégal loolu yëpp mu ngi starté si na job bi baax job bi clean soo gisee ñu am maximum artistes yoo xam ne ku ci nekk ku ne ñëpp nangul nañ la sa mënin si lu ngay def ñu si leen si album bi zap ku ne ñëpp xam nañ ne zap musique moom mooy loolu soo moo tax li ñu fexe mooy album bi nice ba pare ñu def ci luñ ci war def pousse ko waaye everything dañu starté Gambie ba pare soog a dem feneen fu ñuy dem because bay si sa weewu tànk charity begins at home fii la xot lañ dee gis mostly nii si kanam waaye nekkul ne xot bi rek la am na ñu nekk si gannaaw everything mu ngi starté like I Dinga, nga am seen di suma gannaaw mostly su may perform mooy nekk si gannaaw nekk si xam di def DJing beeg something like that I got my man Spook oh, you know what I'm saying xam nga moom moom mooy suma hype man bi you know what I'm saying and uh, maa ngi am tam Zap moom moo nekk si gannaaw toxtoon ak Zap dara du sotti because music yu nice yu ngeen di dégg si xol bi tax ngeen koy feel Zap moo nekk si gannaaw xam nga with the magic fingers di def lu yéeme you know what I'm saying and uh, ak suma manager bi Abdallah moom tam mu ngi def liggéey bu sell liggéey bu mag lay def xam nga some professional stuff yeah, I could my man I freaking moom su ngeen seetloo back to the cypher kii bi design bi moo def def ko sa xel tër bit ren di jéggi moo I'm down for my people do my sound stupid you can feel this classic but you can never know me you can be from street but you can be my homie I ain't down for the bullshit started from my old head bokku you gum gum, you go for them chicks yeah I'm good for the street me and hip hop we going further like Simon Mr. Photo Lord of the Rings so classic every time I drop so classic Every time I bring hip hop classic. Every time I rhyme so classic. Every time you know we bomb blast it. Every time I drop so classic. Every time I hip hop classic. Every time I rhyme so classic. Every time you know we bomb blast it. Every time I drop so classic. what's up? Let me bless this bit, man. Cause I know this your favorite giant. hey, yo, Corina, let me yeah, get that book, yeah. yo. Come on. Every time. for plastic. My lyrics so rich, athletic, the nasty. I'm so authentic. We understand when I spit is knowledge. Hum hum, wanna gen knowledge. I'm them, Senko. Anytime, no doubt. Can do ready, my voice to the cloud. I'm the Sufi, hot beat of a meti. Def course I hell, third beat Randy Jiggy. Mama, you tell, I'm down for my people. Do my sound is stupid. You can feel this classic, but you can never know me. You can be from my street, but you can be my homie. I ain't down shit started from my own hip. Walk on you gum gum, you go for them chicks, yeah. I'm good for the street, me and hip hop. We going further, like Simon Mr. Photo. Lord of the Rings, so classy. Every time I drop, so classy.